asalaamaaleykum à euh, tous les spectateurs de Rewmi TV dalee nag jàmm ci seen euh, premier numéro euh, bu seen émission Actu Rewmi ñuy jaajëfal ñëpp nag ci màggal bi nga xamante ni si lañ jugee di ñaanal ñëpp ñi nga xamante ni teew nañ fa lépp loo xamante ni ñaan nañ ko ci biir réew mi yàlla def ko yiw sotti ko ci biir Sénégal def jàmm Sénégal def ko si àdduna si sépp di ñaan tamit Serigne Mountakha Mbacké yàgg fi ak wér ak yi nga xamante ni ñoo nekk ci mi kilifa yi nekk ci kër gi yëpp li ko dalee réew mi fm réew mi point com réew mi quotidien ñëpp ba ki nga xamante ni moom mooy suñu président di Mbagnick Diop yàlla defal ko jàmm baax a baax ak li nga xamante ñaan nañ ko ci màggal ko aussi yàlla defal ñu ko ay xéewal yu bëree bëri bëri bëri namoon nag suñu chroniqueur moom tamit demoon màggal ji xam naa moom tamit xéewal na baax ci màggal aussi ñaan na fa bu baax a baax baax ci màggal gi ñu jógee ak suñuy technicien donc euh, sama papa mu ngi nuyu Fall maa ngi lay fay Mor Fall mm-hmm. waaw di wax rek ni di nuyu nag euh, internet yëpp ak téléspectateurs et téléspectatrices yi di leen wax rek ni kontaan nañ encore une fois dellu siwaat pour càmbar li nga xamee ne moo di actualité bi waaw ci gannaaw loolu nag maa ngi ndokkeel ñëpp ñi nga xamee ne jullit yëpp yi nga xamee ne dañu màggali woon ak ñi nga xamee ne jotuñu mën a dem màggali ñu tëdd ñi nga xamee ne dañu tëdd feebar ci seen biir kër yi seen xol yi dem ci màggal bi di leen wax rek ni seen màggal yegg na ca euh, ku tedd ki yegg na ci ki nga xamee ne moom la ñuy wax euh, sëñ Tuubaa waaw di wax rek ni màggal gi dafa am benn phénomène boo xamee ne bu fekkee ne nit ñi ak jullit yi ñu ngi am seeni ay xalaat walla ñu ngi am xalaat dana ñu gis ne li nga xamee ne moom moo doon euh, déclaration bi nga xamee ne xalif général des euh, Mourides moom la def ak ni mu doon delloo njukkal délégation bi jóge woon Tivaouane ma bëgg a wax rek ni képp ko xamee ne dégg nga euh, li nga xamee ne xalif général moom la wax ma di ko wax rek ni dugg na ci xol yi te dégg nga te tooyal na xol yi te noonu mooy fi nga yoon bi nga xamee ne fa la ñu war a mun a jóge pour que mbas mi dégg nga yàlla wàcc yërmande ndaxte keroog soo ko déggee muy wax dangay xam ne kii ku dëggu la dangay xam ne kii li muy wax nitu suñu borom la loolu laa doon bugg a indi ndaxte loolu ci màggal gi yépp loolu laa ci gën a retenir ndax moom moo nekk ak ñun moo nekk ak jamono nam ko waxee ak na mu leen doon delloo njugal parole yi nga xamee ne moom la doon yëkkati bu ci nekk mu am palaasam ba mu koy teg ba ni li nga xamee ne moom la war a génne dafa seey ci biir xolam alors donc foofu ci loolu wax jooju daf ko wax rek mu mel ni ay làmp moo daal di tàkk ci dënnu képp ko xamee ne doon naa voilà donc euh, mu nekkoon euh, euh, sa intervention rek ci li nga xamante ni mooy màggal gi aussi di si jaajëfal ñëpp rek dañu ubbee d'abord li nga xamante ni moom mooy la une de Rewmi quotidien injure raciste contre des enfants sénégalais un militaire canadien condamné trafic de drogue de sénégalais arrêté en Gambie attaque contre Anne ses boucliers au front toujours dans Rewmi quotidien il lui donne 1,7 million pour envoûter sa copine. Le charlatan disparaît avec l'argent. Euh, toujours dans Réumi euh, quotidien, Ligue des champions, Ronaldo offre la victoire à Manchester United. Bayern et Zenit déroulent. La Juve domine Chelsea. Lille battue à Salzbourg. Euh, le Barça encore humilié. PSG Manchester City, la frappe de Ghana flashée à km/h. 2021 le calendrier a dévoilé euh, donc yooyu euh, moo nekk li nga xamante ni moo gën a fës tey ci les une de Rewmi Quotidien xanaa nga jox ñu juste benn commentaire rek ci euh, grande une bi nga xamante ni moom la ñu joxe tey ci injures racistes contre des enfants sénégalais un militaire canadien condamné. encore une fois li nga xamee ne rek moom la ñuy constaté waat. Mmh. te du loolu loo xamee ne guléet la. moo di eh, question wu appartenance ak communauté ak ñi nga xamee ne ñoo bokk même xeet ak étranger yi nga xamee ne ñoo cay ñëw ñu leen fay accepter wala ñu war leen fa accepter mu ngi mel ni tey jile bu dee da nga ñëw ci communauté séeréer dégg nga di nga gis eh, lii nga xamee ne tubaab bi moom la def dégg nga loolu lañ dinañ la rejeter ndaxte bokkook ñoom gis-gis bokkook ñoom ay taxawaay dafa am nag ay forme yi nga xamee ne ñun ba ñuy nekk xale ak di dem di jéggaani à l'étranger ñuy gis façon wu racisme yi nga xamee ne moom la ñu yàgg di ko gis ak colon yi biñ fi nekkee ak na nga xamee ne noonu lañ doon wax suma Mamadou suma booy suma yéeg yu mel noonu yooyu yëpp dégg nga ñu daal di ne euh, la tàpp bi ñuy def à l'épaule daal di ne la voilà euh, nu mu tuddati kii sama booy la ku baax la c'est mon Mamadou c'est Mamadou boobu boo demee ci li nga xamee ne moom la Voltaire bindoon ci la dictionnaire des rois su la ne euh, na nga def yow yaa fi gën a baax ça veut dire que ne yaay suma jaam te li nga xamee ne philosophe olof yi nga xamee ne ak euh, ci li nga xamee ne moom la ñuy yàgg di ko dégg moo di que ne diggante tubaab ak nit ku ñuul bëri bu kéeg mbaam la rek mm-hmm. roi noir bi mun na toog def acte de comme tubaab bi mun na def acte de racisme racisme nag dafa nekk moo di que ni euh, ràññale xeet yi rejeter beneen xeet jël beneen xeet daal di ko ne mu nga moo nekk ci suuf ak yeeg yooyu comme ni ko Hitler daan defee ak yeeg yooyu dégg ne tubaab moo gën nit ku ñuul nit ku ñuul moo gën tubaab loolu dafa nekk loo xam ne lu yàgg lu yàgg yàgg la ba ci naar yi ak nit yu ñuul yi lu yàggale ci nit ku weex ak nit ku ñuul. mais koo xamante ne nee nañ euh, surtout militaire nga euh, aussi nga ngay def ay xale est-ce que loolu c'est digne d'un militaire. loolu du ci dara dafa nekk ne ku ci nekk ak sa xol ak sa xel fi muy xoolee ndaxte euh, militaire ba nga xamee ne mooy général canadien ba mu ngay jël di repêcher des enfants yoo xamee ne ay orphelins lañ ki nga xamee ne moom na mu gisee. dégg nga li ci métti mooy mu ñëw ba ci suñu réew di ko def ba mu ko defee sanction bi daanu na ci am sanction boobu bu fa daanoo nag na nekk sanction boo xamee ne du ñu ne par la diplomatie wala lii la ñuy def wala l'armée canadienne ñoo taxaw dégg nga indi ay canon parce que jàpp nañ seen benn sous-officier li may bëgg wax rek moo di que ne les actes de racisme sont réprimés muy France muy Sénégal muy fu nekk. ça c'est quelque chose de tout à fait normal. voilà donc euh, mu nekk lu euh, mu wax ci li nga xamante ni moom mooy euh, la une de Rewmi Quotidien ñu ubbi suñu waxtaan tey ak wàllu employabilité des jeunes parce gis nañ ne booba léegi Sénégal ñu ngi ay projets yu nekk ngir mën jàppale ndaw ñi seen yi mais ba léegi mënaguñu trouver la solution ñu dem sax wax ne am na benn étude boo xamante ne dañ naan une étude boo xamante ne day andi inégation ci li nga xamante ni wàllu formation ak li nga xamante ni moom mooy demande marché bi donc mu mel ne kon li nga xamante ni moom la marché bi di soxla ak euh, formation yi nga xamante ni moom moo ñu offrir fii Sénégal mu mel ne dafa mel ne yàlla ak yàlli donc yow euh, est-ce que nekkul ne ci si ci suñu système bi la wala boog suñu jeunes ñoom ñoo xamul boog ñoom euh, nag naka la ñuy def ba choisir les les les bons métiers. suñu jeunes yi xamuñu li nga xamee ne moo ci nekk moo di Assane Samba ba muy bind lii su ma laajoon dinaa ko ne ko Assane Samba mm-hmm. lii nii. ak ñi ñi nga xamee ne ñoo ordonné étude bi ñoom dañuy fontoo ndaxte xam nañu ne ba Sénégal nekkee Sénégal ba tey soo déggee ñu naan la inéquation euh, emploi formation ça veut tout simplement dire que ni suñu système éducatif bi ak li ñuy jàngale ak li nga xamee ne moom la entreprise yi monde du travail bi di soxla dëppawul. sa sa sa doom Ngoye Ndiaye moo ko bind. nga ni sa doom Ngoye Ndiaye moo ko bind. waaw waaw euh, mais li mu gis rek li mu gis rek la bind li mu gis rek la bind te lii nii ba ñu commencé di wax emploi ci Sénégal am na ci ay études yoo xamee ne man mi maa ko def ci inadéquation emploi formation donc bu ñu demee ba waxtu bii ñu daal di ne inadéquation emploi formation formation des jeunes waxoon naa la fi ne bu amul politique boo xamee ne politique gu insertion sociale et professionnelle dégg nga mu am ay euh, mesures spécifiques pour def ay dispositifs yoo xamee ne jeunes yi nga xamee ne sortis du système scolaire avec ou sans diplôme ñoom ñoo war a daal di mën a fexe ba am ay euh, tuyaux ak ay euh, canaux yoo xamee ne dispositifs yoo xamee ne daf leen di mun a insérer. ci li nga xamee ne mooy le tissu économique. mais monsieur Fall est-ce que loolu dina yomb parce que man Sénégal dama gis ne euh, dañoo bëgg a jël lépp copier ko ci benn système boo xamante ne système européen la alors que dëkk bu nekk da ngaa war a xool yow sa sa sa dëkk ni muy doxee nga jéem a xool naka nga naka ngay créer le le le le euh, système pour pour mën a développer soit ci formation yi wala emploi yi euh, mais lépp Sénégal ku ko am bac rek daan man damaa bëgg a dem lettre moderne laa bëgg a kii la géographie laa bëgg a dem alors que. loolu nga xamante ne lépp ñu ngi koy jàng ji mënuñu ko pratiquer parce que à plupart à l'université formation yi ñu fay def ce sont ce sont ce sont des des enseignements académiques boo paree mënoo mënoo koo tari que mënoo am li nga xamante ni moom mooy licence en en lettres ñu dañ dañ lay jël nga liggéey ci hôpital wala fenn donc nekk nii ñun suñu suñu ay euh, njiit ñoom ñoom ñoom ñoo parewul ngir mën a euh, développer wala boog njiit yi ñu am boog ñoom ñoo amul xelu naka la ñuy def ba jéem a xam lan mooy tabax Sénégal suñu njiit yi nga yi nga ci tudd. dama lay wax ne la li nga bugg adéquation. adéquation emploi formation pour que mun a am il faut une volonté politique. il faut une volonté politique bu la war a mun a permettre nga daal di jóge ci passerello système éducatif passerello système éducatif pour dugg dans le monde du travail mais boo ñëwee ci fi nga xamee ne fa la xëy di nekk bon te entreprise yi. dégg nga euh, modèle de développement ak euh, bi nga xamee ne moom la ñu choisir xam nga boo demee Europe da ngay gis entreprise yi di wax ne université bi war ngeen ma indil tant de profil tant de personnes tant de kii pour que ma mun a daal di asseoir dégg nga un développement économique boo xamee ne pérenne mm. mais fii loolu dafi amul bu fekkoon ne chef d'entreprise yi dañuy toog dégg nga mais dafa am benn cloisonnement boo xamee ne moo nekk ci système éducatif bi dégg nga ba pare état bi daal di jóg def ci emprise ba nga xamee ne monopole éducation bi état bi daf ko war a kii te balaa lii ñuy bëgg a wax euh, inadéquation emploi formation pour que mu mun a nekk il faut que ñu libéraliser l'enseignement post-universitaire enseignement post universitaire moo di enseignement boo xamee ne soo génnee ci kii bi ñu defal la formation professionnelle boo xamee ne di nga mën a gis sa place dans le monde du travail tant que loolu amul dañuy dem dem ba génération bi jeex rek ñun ñu daal dem tëdd fële ceem dégg nga mu jeunes yi daal di ñëwaat naan non nañ la ñu def nañ la def mais ñun ba ñuy xam Sénégal ak ba ñuy jóg di jàngi dañuy séminaire yi nga xamee ne ñoo war a indi adéquation emploi formation def nañ ci yu bare bare bare bare dañuy tëdd di nelaw nii dañuy tëdd di nelaw ñu koy tari ñu naan mais waa ji li muy wax fekk c'est quelque chose boo xamee ne euh, diagnostic bi li koy def li tax inadéquation bi am ak li tax adéquation bi amul loolu yëpp dañ ko nekk ay année di ko séminaire di ko def ba ñu taxaw fii kii orga kii euh, kii nga xamee ne dafa dafa def euh, étude bi le il ne euh, kii ñu euh, apprendre ñu dara. dafa mel ni man ba ma ko déggee dama ne alors euh, benn waay la ñu bëgg a at xaalis wala yeeg yooyu mu génne fii ay chiffres yoo xam ne chiffres yi mu génne fii bokkul ak yi nga xamee moom la ñu génne en 1980 bi fi ñoom ab Abdou Diouf nekkee ah, bi fi Senghor nekkee bi fi Abdou Diouf Ablaye Wade nekke étude bi ça man dama ne c'est du pipo pipeau moo di génne rek c'est vraiment pour meubler les les trucs waaye même ba nga xamee ne président de la république mu ngi wax naan emploi jeunes yi ak yeeg yooyu fa ñu war a commencer la ñu tegagul tànk. mais man est-ce que nekkul ne dañoo war a préparer d'abord lan mooy les métiers d'avenir bu Sénégal parce que euh, à chaque fois ñu ngi wax naa ay cryptomanie ñu ngi wax euh, pétrole ñu ngi wax gaz au Sénégal mais à chaque fois ñu ne euh, on va créer une école de formation buy former des ingénieurs li pàccetee pàccetee mais loolu lépp day dajale leen filmer leen après jékki-jékki le projet tombe à l'eau est-ce que jotul fi mu nekk nii état bi soit fekkee moom dafa dafa laj ji bokk ci kanamu euh, jàng wala boog ñoom seen système bi ñu jàngee lañ bëgg a imposer ndaw ñi ndaw ñi aussi ku ci am bac war a dem xool ban formation moo nekk formation d'avenir nga ne waaw man sama xarit bi nijaayam banquier la xamal def di banquier alors que yow tu t'es pas tu t'es pas euh, ce que à ce ndax banque ndax saturé wul. wala boog ndax banque am na benn métier d'avenir buy ñëw à l'avance nga dem investir sa jàng nga xamante ni tôt ou tard xam nga ne yow tu tu tu tu vas tu vas travailler. ma ne xam nga lépp loo gis dafa am règle du jeu xam nga euh, Sénégal ba muy nekk Sénégal dafa amoon ay métiers. métier boo gis. professionnels yi ñu nga fa ba tey dama dem keroog marché. ma daal di gis benn un vieux métier mm-hmm. mooy horloger mm-hmm. waa ji di ma wax naan ma ci nii laa takkee jabar sama doom ci laa ko yóbboo France mm-hmm. ci lii laa am ak yeeg yooyu euh, comptoir franco-suisse di ma wax ba sama bopp bi dégg nga ma daal di ne mais loolu yëpp li ko def wax naa la fii ne la soo demee Europe da nga fay gis agence nationale pour l'emploi léegi ñu ngi ko tuddee pôle emploi lañ ko tuddee pôle emploi da ngay ñëw foofu fekk le secteur du primaire du tertiaire da nga ñoom ñëpp ñu daal di xam euh, les catégories socio-professionnelles lan la ñu. xale yi nga xamee ne ñoo génn euh, ci système éducatif bi nga xamee ne c'est le brouillard total dans le monde du travail su ñu yeggee bu fekkee ay artisans la ñu war a doon ñu daal di leen jël pour won leen métier d'artisan quelles sont les perspectives. métier mm. métier plombier ban perspective la. métier euh, pétrole boobu ngay wax ci yan école lañ war a jël ku ci nekk jël li nga xamee ne moom nga war a jël bët ci ñi nga xamee ne dañu am ay échec scolaire ci système éducatif bi war na am li préparation boo xamee ni dispositif boo xamee ne dina leen mun a permettre pour que bu fekkee ne dinañu leen di dugal ci li nga xamee ne moom la ñuy wax des unités capitalisables moo di que ne ci biir formation yooyu ñuy def noonu dinañ ci war a mun a jël ay bloc cohérent yoo xamee ne dina leen war a mun a permettre ñu daal di prétendre soit duggaat ci système éducatif bi pour mun a jàngiwaat pour génn ak diplôme mais ou ñu daal di mun a def ay progression daal di nekk am ay diplôme professionnel diplôme professionnel moo di que ni euh, les seniors expérience professionnelle yi nga xamee ne dañu kii gis nga actuel l'heure actuelle da ngay dem France ñu wax la le seniors les seniors mooy ñan mooy ñun les seniors mooy ñi retraité <laughs> ñi nga xamee ne ñu ngi au bord la retraite cinquante cinq ans ko kaw dégg nga seniors yooyu expert capital expérience boobu dégg nga da dégg ma jox la benn kii gis nga Renault cinq bii ngay gis nii muy daw R5 benn ouvrier benn ouvrier Renault bu mosula toog bu mosula toog ci école moom moo ko dessiné moo ko dessiné ñu def ko la voiture du peuple gis nga wax naa la fii ci suñu yeneen émission yi ne la ñun suñu problème moo di que ni amuñu ay breveté mm. amuñu invention bu ñuy war a def mm. gis nga nu mu tuddati oto ba ñuy dawal sax defaruñ ci benn mm. avion ba defaruñ ci benn climatiseur ba defuñ ci benn ventilateur sax mënuñu ko jël defar ko ba mu taxaw xam nga ñun sax dégg nga ñu nekkee xale daan nañ jël ay almet di jël ay almet di leen kole di leen defar di defar ay oto di kii yu mel noonu gis nga ci génie boobu doon euh, émerger dégg nga dafa amul une continuité boo xamee ne ñu mën a permettre pour que ñu développer la formation et la recherche da nga koy dégg nii rek mm-hmm. mais dara dara da dara dara dara waroo jeex je pense que du xaw a parce que puso sax Sénégal dañ koy euh, exporté dañ koy andil donc mi ngi noonu daal dañuy andil lépp daal Sénégal daal je pense que euh, peut-être que bu ñu amee un nouveau président comme Momo wala boog comme Malick peut-être que le Sénégal va se développer parce que ñoom am nañ esprit euh, de développement ak esprit entrepreneurial donc ñu daal di dem ci beneen wàll wax ci li nga xamante ni moom moo ñeel wàllu màggal gi ñu jógee ak impact bi ñu wax ne am na ko ci ci économie ñu wax ne il a fait euh, au Sénégal deux cent cinquante milliards euh, donc euh, donc yow nga ci def ak jamono ji fi mu toll nii ci Sénégal. j'espère que ni économistes nga impact bi nga xamee ne moom la màggal bi di indi. Mhm. ci suñu économie yàgg nañ ko di ko di ko wax. Mhm. waaye bu fekkee ne dañu toog ci màggal gi ñu gis ku mel ni président de la république daal di jël li nga xamee ne moo di hôpital bi gën a sophistiqué mu def ko foofu kon nag compensation am na déjà kon nag mérito nañ ko kon nag réalité boobu nga xamee ne moo taxaw moo tax nga gis cëppi cëppi pëcër pëcër bi ak yéeg yooyu yëpp layam layam ju bari jeg yooyu yëpp ñu koy def parce que ku def lu rëy am lu rëy Abdou Diouf ma ko waxoon ku indi deux cent cinquante milliards mu ni li indil hôpital boo xamee ni dégg nga mooy gën a sophistiqué hôpitaux yi nga xamee ne mooy fa la fa la nit ñi daan jóge di dem France di leen fa fekk ci ñu amee plateau boo xamee ni bu mucc ayib mais mon propos n'est pas du tout ça propos bi moo dikk ni hôpital boobu ñu indi noonu am nañu les ressources humaines mm-hmm. mooy am na ñu nit ñoo xamee ne daañu ko mun a euh, doxal mm-hmm. euh, dafa am technologie nouvelle yi dafa am comportement yoo xamee ne dafa war a commencer ci ñi nga xamee ne ñoo jiite loolu nga xamee ne mooy plateau médical boobu ñuy nekk naan dafa mucc ayib benn ñaareel ba mooy il faut que ñu am maintenance boo xamee ne dina mun a tax ba nga ñu toog ba fi ak deux deux dix ans fii ak cinq ans yëpp day dox de fii ak euh, sept ans day dox mais bu fi ñii jógee ñeneen ñiy ñëw par la suite da ngay xëy benn so ñu la rajo ba paan rajo bi pour ñu mun ko de ñu mun ko kii il faut ñu toog six mois sept mois balaa ñu koy koy indil mm-hmm. fekk nit ñëpp riirandoo nañ wuti ji ci hôpital boobu mm-hmm. dégg nga ñuy dee comme ay muus di dee comme ay muus ak yeeg yooyu man gis nga li nga xamee ne moom lay moom laay euh, kii les bienfaits du magal dégg nga euh, tax na ba nga xamee ne indi nañu li nga xamee ne ñun moom la ñuy wax hôpital boo xamee ne plateau bi euh, dafa mucc ay dina ñit ñi dañu gi mais benn hôpital bu mel noonu sous région bi yëpp di fa ñëw Euh, rajo ba paan wala ñu daal di ne yow mi euh, soo amul alal doo fa dugg loolu dafa bokk sous prétexte que ni matériel bi dafa cher dégg nga di wax rek ni problème mu maintenance ak problème mu liggéey mooy problème mu Sénégal fii ban hôpital nga fi gis ñu daal di ne wuya bu la dara jotee nga daw dem ca hôpital boobu foo dem ñu daal di ñoom ñoom benn lañ da ñëw ñu la demal fale amuñu place fii ngay wër ak sa malade ba mu dee. waaw mais mais côté côté man côté euh, kii bi may gën a ñu insisté mooy côté impact économique bi nga xamante ni euh, andi na ko parce que Sénégal fa traversé kii yu bëri bëri on disait que le Sénégal est à des déficits ci wàllu économie mais ñu ne am lu toll ci deux cent cinquante milliards yu dugg euh, ci en moyen de de de deux mois. deux cent cinquante milliards en en moins deux mois est-ce que jotul fi nekk nii ñu ñu gën a mën a euh, jëmmal genre événement yu mel nii parce que euh, c'est c'est rare Sénégal am genre événement yoo xamante ne dugal autant d'argent ma euh, réew du ay màggal a koy téye màggal événement précis la événement la événement boobu mook événement tabaski yi ñoo yem mook événement religieux yi ñoo yem dañuy am système boo xamee ne moom mooy suñu système de progression et de développement loolu ñëw bokkaat ci biir nous ne sommes un pays de tourisme ak dëgg yooyu on a des industries il faut une politique industrielle il faut une politique agro-industrie il faut que ñu daal di am ci mais yii nii gis ne deux cent milliards yow suñu budget nekk euh, quatre mille milliards mhm. moyen ko ci deux cent cinquante milliards dafay mel ni beñuwaaru ndox boo dem ca biir ca biir géej gi nga daal di yow sotti ca ndox robinet pour mu neex. Ah, xam nga du mën a neex mais mais à part tourisme du Sénégal est-ce que am na beneen moyen bëri bëri bëri bëri. mais. alors que yenn activités yu bëri dematul le Sénégal ne. Sénégal Sénégal. Mhm. fii ba ba ñuy wax les euh, formation nouvelles yooyu ngay wax noonu ay impact pétrole beeg yu mel noonu. Sénégal li mu amoon moo di gën le Sénégal se nourrit de taxes yaa ngi dégg taxes yooyu taxes sur les euh, produits indirects ak sur les produits directs ak euh, yi nga xamee ne moom la douane bi di dugal ak yi nga xamee ne recette yi nga xamee ne moom la ñuy am ak yu mel noonu dafay euh, tax ba nga xamee ne dafa secteur yoo xamee ne dañu cible ndaxte mun nga toog ni yow moor ba si yàgg nga jékki-jékki rek dégg nga di euh, ñëw ci benn événement di battre kooku fisc bi daf la war a topp xool fan nga jëlee xaalis bi boo xamee ne yow xaalis bi yaa ko moom dañ nga ko fii ne dañ la ko may fii may fii ñu daal di la calculer sa prorata ne la fayal impo waaye li ñuy wax rek justice à deux vitesses ku mu am ndey ku mu amul ndey dégg nga da ngay toog ba si yàgg ñu daal di la non kooku bàyyi ko parce que ci ñun la bokk bàyyi ko parce que mouvance présidentielle la nekk bàyyi ko parce que nii la bu fekkee ne ki euh, da nga toll comme ñu mel ni ñoom Bougane Gueye ñu daal di la tegal redressement fiscal. mais ci loolu est-ce que kon euh, war nañ ko mën a def ci ñi nga xamante ne peut-être dañoo xëtt ndigalu sëñ bi mooy ña fa nekkoon def ay ay ay graya beek yu ni mel takk ay 3 kilo or ak ay bandoulières en or ak ay masques en or mu nekk genre caaxaan yoo xamante ni c'est c'est euh, dafa mel daal faale wu ñu li nga xamante ne sëñ bi wax na ko ci ci dëkk bi. ñooñu ñu def affaire yooyu yow noo ko gisee lu loolu toll la ci ci ci bis ci genre màggal yooyu. man li ma lay mën a wax rek mooy dama toog jouru màggal bi suma benn xarit bu nekk Conakry mm-hmm. daal di ma yónnee mm-hmm. photo bi mm-hmm. daldi ma bindal ci suuf turu jëkkëram. jëkkëru ndaw soosu waaw. ba mu ko bindalee ma daal di xool di xool vidéo yi am foo xamee ne sax séen naa ko foofu ci biir. Mm-hmm. jëkkër ji moo di ko accompagner di ko yéegal. Mm-hmm. wala ku niroog moom. Mm-hmm. ma xam ne bu fekkee ne kañoo kama xamoon la ah. kooku dafay fonto Sénégal. parce que man ak moom ay morom lañ. man ak moom mun nañu waxtaan. man ak moom dañ daan ànd di def les quatre cent coups. nee naa la Conakry lañ ma yónnee photo bi su ma paree léegi léegi léegi dinaa la ko won ci sama portable. ak ki ko bind ak ki ma ko bind ak ki ma ko yónnee. ma lay bëgg wax rek ni Sénégal dañuy foyee diine senegal yàlla lañ gën a yeb que alkaati bi taxaw ci mbedd mi. parce que xam nga yàlla duñ ko gis bu ñu wootee mbirum diine il faut que nga gis des gens yoo xamee ne dañuy ñëw di indi loo xamee ni yu extravagant mm. boole ca lu ca bokkul li nga xamee ne moom laa la ci mun a joxaat comme information mm-hmm. moo di que ni nee nañu ndaw soosu nga xamee ne moom moo def euh, yëfu caaxaan yooyu mm-hmm. ak ñi nga xamee ne ñoo koy nekk di ko euh, wëyal mm-hmm. ak di ko xalamal ba mu jógee màkk commencé na ko réseaux sociaux yi jóg mu commencé di jóg di saaga waaye nag waroon nañu mun a euh, ormal suñu tarixe bi li nga vertu ak euh, essence ak li nga xamee ne moo taxoon màggal gi jóg ñu daal di fexe ba nga xamee ne duñ ci dugal caaxaan yooyu nga xamee ne masque en or maa ngi nii gis naa juróomi nit yoo xamee ne ñu ngi leen di bëgg a dàq seen kër gis naa ñëpp euh, ñoo xamee ne ñu ngi feebar tëdd bëgg a faju mënuñu faju gis naa ñoo xamee ne ñu ngi bëgg a dem diggante fii ak géejawaay dañuy dox parce que amuñu paas am nañu seen kër nangu ndox Touba waaw ndoxu taw bi nangu biir Touba donc yooyu yëpp ñu daal di fàtte loolu yëpp fàtte toog jàng xasaayit toog di wax naan Serigne Touba moo la ko jox yooyu nag moo tax ba nga xamee ne suñu tarixa bii nekk tarixa boo xamee ne euh, ñi koy tooñ dañu bare mais est-ce que nekkul jotul fu mu nekk nii ñu ñu ñu bàyyi ñi nga xamante ni ñoom ñooy waa euh, ñoom ñooy waa Safintou Amane ñun ñoom ñooy police religieux bi ñu bàyyi ñu def seen liggéey si biir dëkk bi benn benn corps bi ñëwaat ñoom pour renforcement parce que je pense que tant que ñu noonu euh, dëkk bi day continuer rek ñu ñu doxal lu leen neex. parce que Safina Amaan génn nañ wax nañ affaire yooyu euh, wax ci mbir ba ñaaw lu ko est-ce que jotul fi mu nekk nii euh, spécificité bi nga amoon na ko ci temps euh, sëñ Abdou Ahad ku mu def dara mu ñu doxeeg yow comme ni nga xamante ni noonu lu teg si wax si biir Touba bu jëree labale ñu labale la bu jaree génn dëkk bi ñu génn dëkk ba ñu bañ ñu état bañ ci bañ cee wax leen parce que dëkk boobu dafa nekk dëkk boo xamante ni dëkk bu spécifique la. non ci biir état la nekk. état bi moo koy dox milice parallèle yooyu sëmbaxloo ak jafe-jafe rek la ñuy indil li nga xamee ne état bi war na ko def naam moo di que ni kooku nga xamee ne jëkkër ji ca wetu Macky Sall la nekk arrangé wul Macky Sall ndaxte loolu mu def noonu dégg nga c'est pas parce que je suis avec Macky Sall sama jabar war na def lu ko neex ça c'est un l'ordre état bi moom moo ko moom moo ko yelool euh, charte yi nga xamee ne nag moom la kilifa diine yi teg foofu mbir mi teggin la rek ak éducation respecté waxu sëriñ bi bu demee nag ba nga xamee ne am na ñu jàdd koñ milice yooyu mën nañ leen jàpp jébbal leen état bi waaye état bi ci boppam ba mu gisee loolu inspecteur des impôts yi dégg nga waroon ñu jóg dem jubali ca biir li nga xamee ne moo di euh, biir Touba ñu daal di def redressement fiscal xool origine wu ndaw si fan la jëlee xaalis ki nga xamee ne moom mooy euh, nu mu tudd ci jëkkër ji fan la jëlee xaalis. kon li nga jàpp mooy dañu war a jàpp ñooñu ñu ëpp leen ci kaso bi laaj leen fan la jëlee xaalis bi. du du kaso. Mm-hmm. dañ di enquête d'abord mm-hmm. parce que fii dafa am charte. Mm-hmm. c'est pas euh, un truc xaalis bi dinañ la laaj foo ko jëlee. xaalis boobu comme dañuy wut taxe te Sénégal taxe lay dundee. 40 mhm. pour cent du budget du Sénégal ay taxe la 46 pour cent. Mhm. Ah? Mhm. ak yeneen yi nga xamee ne ci taxe direct yeeg indirect yeeg yeeg yu mel noonu maa ngi lay defal ay eh, finance publique fi ñu dool di la wax rek ni loolu noonu moo di que ni France boo fa ña moo kenn mosu fa ñeme dégg nga di wone kii nga am da gis sax euh, euh, sa papa dee. ñu daal di ne la yow yaa war a hérité euh, télévision bi télévision ba fisc bi ne la li ak lii ngay fay ak yeeg yooyu nga daal di ne maye naa ko. kon voilà donc nga tàggatoo beneen parce que liñ cëroon ci waxtu jeex waaw di wax rek ne tey jii euh, xool yi jóg nañ. Mm-hmm. ndaxte bu ñu demee ba xamee ne gis nañu assemblée nationale bi doon wax naan ñun mënuñu autosaisir ak yu mel noonu. dégg nga ñu daal di leen indil nag tey jii ñu euh, annoncé ne seen session dafay génn di leen wax rek ni diggante bi seen session yi di ubbi ba bi muy tëj xanaa yaakaar nañu nag bu leen fi tëj mukk nag di wax ne procureur moo ñu woowul moo tax waxuñu affaire diplomatie foofu rek laa bëgg a yemale kii bi bu leen fi wax mukk que ni tijji nañ session bi dem nañ ba mu jeex procureur mosul auto saisiru dégg nga ñu daal di ci teg ay quelques weer rek. élection yi daal di ñëw ñu daal di commencé ak yi de fi mu toll nii lii nga xamee ne moom la ñu war a fóotee réew mi mooy di que ne ñi nga xamee ne ñu ngi ci passeport diplomatique yi ñi nga xamee ne ñoo ñooy takk ay trois kilos door ci ay kii religieux yi di wanewu dans les réseaux sociaux ak ñi nga xamee ne mooy euh, li ñu fi dige te amagu fi ak jafe-jafe yi dégg nga pour que ñu mun ci génn ak ñi nga xamee ñu ngi ci mbënd mi ndax ba mbënd mi fan yii mu taw nii ci booru màggal gi muy Ndakaaroog Sénégal ak Kaolack ak yëpp ak Touba am na ci yeneen dégâts yoo xamee ne ñëw nañu te yeneen dégâts yooyu état bi ci boppam bu mu tànqamlu politique de pourrissement laisser yi loolu jeex na fi waaw di wax rek ni foofu lay tàggatoo nag di leen wax ba beneen di nuyu nag suñu xarit Ngom mm-hmm. dégg nga Modou Ngom dégg nga ak euh, Maodo Malick mhm. dégg nga Momo ak euh, Papa Ndiaye mhm. Papa Ndiaye nee na dañ ko doon sa defal ay butéel ñu ngi koy mhm. may yàlla may ko mu daaloog sagom ci kat ak DG DG ñoo ngi lay ziar ba président directeur général mon président directeur général préféré uh-huh. di la wax rek ni ñoo ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal nga yàgg fi te wér ndaxte boo fi nekk loolu lambay ñaw <laughs> voilà donc di leen jaajëfal yéen tam yéen ñi saan saa su nekk man moom benn rek laa d'accord ci yow te foofu moom foog euh, euh, ni ko nekk wulli leen wala ñu génn dëkk ba rek parce que dëkk ba nekkul pour puukare donc di ñaanal ñëpp jàmm di defal euh, ñëpp lépp xamante daal ñaan nañ ko ci màggal gi yàlla def ko jàmm si biir réew mi di nuyu samay technicien di nuyu ñëpp ñi nga xamante ni euh, ñuy topp jamono ji di euh, ñaanal ki nga xamante ni moom mooy euh, sëriñ Abdou Wahab Mbacke moom sëriñ Modou Fatou xarit mu sëriñ Samba Mbacke ñaan nañu baax a baax a baax ba vraiment déwén Rewmi TV taxaw donc ñu mën a gën a taxaw wan leen yi xamante ni moo xew ci màggal gi leen jaajëfal leen jox di daje la semaine prochaine ci yeneen sujet ak ci yeneen actualité merci beaucoup